Eh, non man ñenn ñoo may signal chaque jour. kon am naa manager ak mm-hmm. suma grand frère ñoom ñoo may signal. waaw waaw. mooy euh, ñi nga xam ne ñoom la CNG homologué. non parce que boobu CNG ubbeegul sax. Mm-hmm. ñoom ak ligue la. ok ñun amuñu benn problème ak kenn ñun. Mm-hmm. mais comme coow am na. ñun dañuy toog rek di déglu quoi. ok mais ñun amuñu problème ak benn promoteur. d'accord maintenant li ma bëgg xam mooy. Euh, est-ce que. sa combat euh, li nga signé ak euh, Luc Nicolas. Hmm. est ce que am na benn date maanaam euh, doo toog tamit di xaar. non mooy li ma la waxoon combat bañ koy signé. boobu saison bi saison bi tijjeegul. combat bañ koy signé boobu saison bi tijjeegul ñu woon am date. ok combat yu bari yow léegi dégg ay date date mais combat yu bari taxaw te amagul sax date. waaw waaw dégg nga seetee ubbeegul way mën a joxe date. xam-xam laa bëgg a wax mooy. Mm. Euh, euh, euh, Luc signé nga yéen signé na yow mm. ak Eumeu Sène mm-hmm. maintenant est-ce wax na est-ce am na moment boo xam boo toogee ba xaar ba gisuloo combat bi sax nga dem signé def def leneen signé keneen. waaw incha allah combat bi dina am bu neexee yàlla. combat dina am mu bëre ci kàttan yàlla incha allah. mais yow na boobu foo yaakaar nga am. waaw suma yaakaar laa am suma xalaat laa wax xalaat naa ne incha allah maa ngi moom dinañ bëre ci kàttan yàlla. kan moo ko war a signé. li dinañ bëri daal incha allah bu neexee yàlla. wala bu neexee yàlla. non parce que man tu sais pourquoi laaj loolu ndaxte. Euh, Eumeu Sène moom nee na du bëri ak Luc Nicolaï. Euh, Gaston le signé la. Mm. te yow dafa mel ne. yow Gaston sa préféré dafa mel mooy li ma la wax ma. Gaston dëgg na sama ñaata combat. galaa bi mu bëri Gaston moo ko dëgg. moo mm. dëgg maag les deux moo dëgg maag kan sama combat yi mu dëgg bari na. moo dëgg maag Balla Diouf mais moo li may tëggal. non. dafa jot rek moo waroon tegu sama combat mais man aw ma promoteur. bëri naa promoteur bu ne sëñ Modou Niang tëgal na ma combat. Mhm. Aziz Ndiaye tëgal na ma combat. kon préféré woo ah amoo kenn koy préféré ci promoteur. non ma liggéey. amoo benn deal ak benn promoteur ñoom ñëpp su may gaañ lañu. Mhm. su may grand lañu. am ma liggéey moo ñu boole. Mhm. ñuy liggéey mais aw ma ci kenn xaaj ak seen. mais je veux dire euh, amuloo euh, maanaam euh, Luc Nicolas c'est moom. ma ci fay li ma gënal. mu bëral la. Mhm. yow mii sax tey boo déggoon ko waaw ma fay li ma gënal ma bëral <laughs> waaw boo gën a dee. loolu neex na sénégalais yi may fàttali ba léegi. Eh. ñu ngi fii États-Unis yi ak xale bu góor bii di. <laughs> <laughs> ngay woowee xale bu góor bi. yaa xale bu góor bi. Ah, gaa yi dóor. waaw léegi euh, euh, mais mais Modou. Hmm. Euh, Gaston ci tool yi dégg nañ ko muy wax ne. Hmm. Luc daf lay yàqal ndax de Luc nu mu la bëggee tëj noonu dégg nga alors que yow gars yi dañ la soxla promoteur kii la warloo nangu nekk yëfu kenn quoi yow dégg nga coow loolu ak noo ko noo ko jàngatee. non man moom seen wax la xam ñoom seen problème ñoom ko réglé yow man aw ma kenn ñoom problème ok léegi suma grand la garçon suma grand la benn promoteur ñoom aw ma kenn problème mhm. ñoom dañu am seen problème bu biir xam nga nañ waxtaan seen biir mu lijjantiku mais man aw ma kenn xam nga ah, dégg dafa ma ne am na loo xam te bëggoo ma ko wax parce que yow leer na la ne on dirait que leer na la ne da nga ak ëmb seen nee naa su ma xalaat laa wax xalaat naa ne dinaa bëri moom. te li jëntuwoo kan moo ko war a tëgg. dinaa bëri moom incha allah daal. bu neexee yàlla ci ci ci saison bi. loolu laa bëgg nee naa su ma xalaat laa wax doo dugal. <laughs> Ah, léegi léegi mm-hmm. léegi léegi bi. Mm-hmm. mais euh, de façon générale mm-hmm. euh, euh, Gaston Mbengue nee na moom ba léegi mi ngi continuer di di dox sa diggante ak ak Eumeu Sène na li nga nekk fii yëpp. lan lañ ma sant entraînement dem bëre yi ay kii promoteur yooyu am na ñu ko yor Sénégal. Mm-hmm. jaru sax man ma ji kii am na ñu ko yor lu ci am ñoom dinañ ma woo. Mm-hmm. rendre ma compte mais man amul lu may kii. mais ñoom woo nañ la wax la ndax Gaston mi ngi dox ak loolu. non kenn mënu lekk ñaari avance. Mm-hmm. nee naa lekk naa avance li loolu yow xam nga ko yëg nga ko. dëgg la. boo toogee ba déggoo Luc Nicolaï fii ba fii ba janvier nooy def. mooy daal comme li la wax rek. affaire daal liggéey mënut a ñàkk coow ñoom seen bureau nañ ko lijjanti xam mu jeex. loo ngay waaw coow mënut a ñàkk. Euh, yéen mbër yi. dina dégg souvent ñuy wax ne. Mm. Euh, mbër yi. Euh, même seen coow lii ah coow Eumeu Sène bi ak euh, Gaston affaire ak ñoom Luc Nicolaï mm. dina dégg ñu ni c'est parce que mbër yi mm. yéen amu leen habitude seen lépp daal doole la mm. waaw affaire xel ak yooyu du nga ko jëm lijjanti ba tax gars yi dañuy ñëw dox si ko dox dox seen main ah <laughs> vraiment yow mi nga bokkoon si gars yi yan gars yi yan gars non mais gars yi mooy promoteurs yi ay promoteurs rek nangam nangam yooyu dañuy ñëw da nga nax leen da nga wala kan du mbër yëpp du mbër yëpp man mosuma ci taxaw promoteur di signé suma contrat wala dara so ma loolu am na ñu ko yor comme ni ma la wax sànq mhm. mhm. mhm. yooyu noonu yeneen ñu dem la ñetti lu ñuy lijjanti. man dañuy wax ma comme ni ma koy waxee sax bu sikki baa rek geesoo ma yóbbaale. ok dayaa saison bi euh, am na beneen combat leneen parce que je je da nga da nga së da da nga bëre benn yoon ndax yooyu ma sa gañ keneen. bëgguma wax dëgg su ma sañoon ñaari combat lay am moo ma gënal. te mbër moom bëre. bu ñu entraîné te bëre wu ñu perte maa la. Mhm. su ma sañoon su ma entraîné saa yu ma ciy damay bëre mais tamit mooy comme li ma la wax daal <laughs> loolu laa ko mën a expliqué suñu ñaari combat ci at bi. mais comme am na yenn durée de combat yi nii moom laa la wax sànq moo tax bugguma ko ay combat huit mois ay sept mois. daf lay dafa métti préparation day métti boo paree doo ci teg dara saison bi tëj ay benn combat nga ci mën a bëre. Mhm. moo tax bëggatu ko léegi combat bu bëree ba bëri ay 3 mois 4 mois. actuellement hmm. am na euh, am na beneen boo booy séntu mu nekk sa kanam. non balaa maa si dara ma jën ci lii ba pare. ah te bii moom fekkat euh, la ba léegi daje goo ko. <laughs> Ah, waaw waaw ñu daje ko ba pare ba mu fee de bor ñu soog a nekk ci leneen. ok alors léegi ñu ñëw nag ci euh, Modou Lo. Mhm. ci yaa ngi wax sa combat seen préparatif et cetera. Mhm. gis naa ne mhm. bëri na léegi ay mbër yoo xam ne. bëgg buñ ne un 2 3 4 5 jël di yëkkati ay affaire et cetera nangam nangam. Mm. ba li a xam mooy seen ñëw États-Unis nii euh, mi ngi ci ah jaay waale wala nappaate xuuxalaate wala et cetera wala dëgg-dëgg li ngeen def fii États-Unis amul fee ci réew mi toogoon fooy gënul. entraînement entraînement la foo toog di nga entraîné. Mm-hmm. mais mooy comme ni ma la wax sànq. récupération bi ngay am fii nii. Mm-hmm. mënoo ko am Sénégal. ay question ay jaay parce que fii looy jaay am na ko bu ëppale. am mais am na poy toll. Mm-hmm. yàgg naa bëri musuma ñëw fii mais dafa am fooy toll xam nga mooy comme li ma la da ngay solo xam nga génn beneen concentration. Ah, yow kon aspect concentration bi moom la ci ut. waaw waaw noppalu bi. am mais entraînement am na fépp su ma nekkee Sénégal damay entraîné am na ay entraîneurs yu baax yi may entraîné foofu. Mhm. damay entraîné ko mhm. mais comme li ma la wax rek quoi. ok euh, euh, Modou Lo sa combat yi euh, arène bi def nga si ñaata temps ci arène bi. man maa ngi jóg am ci làmb ji ah. nga ci quoi. waaw yàgg ma ci yàgg ma ci. <laughs> alors mm-hmm. en cinq ans. Mm-hmm. Euh, tey soo ma wax euh, ban combat moo la gën a moo la gën a marqué ban nga may jox. combat bu gën a marqué. Mm-hmm. combat daal tuuti. combat tuuti waaw mais suma combat ma Papa Sow marqué na ma. Ah, ndax lan. maa moom dañu bokk dëgg parcelle. xam nga combat bi taxaw am ay coow yu bari daal. xam nga yuy jugee foofu noonu xam di ñëw ci ñun. moo tax. combat boobu daal bu ma ci génnee neex na mu baax. ok euh, sa diggante ak Balla Gaye lan la. lan la comme. waaw yaa Balla Gaye euh, yéen la ñuy woowee euh, defe naa am ngeen lu ngeen indi ci arène bi. Hmm. indi ngeen dèjà ci arène bi ne. Hmm. léegi làmb. Hmm. nekkatul ay paa ak ay mère kese ñoo koy seetaan. léegi xale yu ndaw yi. Euh, jeunes yi daal affaire jeune la léegi. nga indi si aussi seen yi ah mooy def ba mu tëb yi affaire yooyu. Ah oui bien bien. <laughs> yaa ngi ko gis non daa doon rappeur. non affaire la gis ak daal rek. ah waaw mais ne n'importe quel ji n'importe quel t-shirt. non n'importe quoi yooyu. Mm. ay sabadoor ak ñoom seen la ñoon sol mais yéen da ngeen ñëw indi si affaire show xam nga indi si indi si euh, euh, benn entité nan boo xam ne nii. Euh, gars yi ñu ngi koy bëggee moo tax sax sponsor yi topp leen. Mm-hmm. mais leneen li indi aussi mooy yéen mm-hmm. seen combat. Mm-hmm. Euh, da ngeen def exactement comme euh, américain yi. da koy jaay da koy jaayee mooy. coow li fii bon Balla Gaye ku ne xam na fu mu mënee dégg sànni xeer et cetera nangam nangam dégg nga yow. fi nga mënee mooy waaf mais yow dafa am leneen loo xam ne da nga ko da nga ko da nga ko indi mais ci kanam naa ci ñëwaat. maintenant yow yow Balla Gaye seen combat nit ñi dañ koy yàqamti. parce que. ay ay coow xeex et cetera ba gis nañ sax armée pratiquement day génn ci bésu combat <laughs> mu mel ne yéen ay ennemis intime ngeen woon donc seen problème exactement lan la au delà de de làmb ci lan la yéen ñaar yaa Balla Gaye maa moom du ñu ay làmb ñu boole mhm. mooy li may wax chaque jour bu ndeyee ji làmb war a neexal dañuy neexal mhm. fu war a tëkku dama koy tëkku lu ñu war a defante dañ koy defante mais làmb la bu jeexee après jeex na. Mhm. mais làmb ji lu war a defante dañ koy defante. c'est-à-dire defante bi comme yéen comme seen yooyu ngeen di def. waaw ay tëkkunde yooyu yëpp ci bokk. Uh-huh. tëkkoon day jaay day affaire fii ci làmb la bokk uh-huh. mais du ma manqué kenn de respect. Uh-huh. mais làmb la làmb ji moo koy laaj. mais amuñu benn problème. amu leen ay euh, noonu wala. ah man moom jàppul ma ko dara man personnellement. jàppaloo ko dara waaw lu may def yëpp ci làmb laa ko teg waaw làmb laa ko teg jàpp ne làmb la. ok te làmb moo tax may def loolu noonu. ok alors euh, fan yee passé. Hmm. Euh, yéen ñaar euh, hmm. yow ak parce que seen seen problème yéen ñaar dafa demoon ba dugg si amateurs yi yi di di di xeexante ak yooyu ba amoon na ay mag yoo xam ne duggoon nañ si seen loxo dajale leen pour la leen finalement mu am benn espèce de récupération de l'autre côté. Euh, su ma doon côté mooy mooy mooy palais ba. Mm. ñu woo la yéen ñaar dajale leen ngeen dem bon ba ngeen demee il paraît sax ba ngeen ba ngeen génn seen poche diis nañu ak yooyu yëpp. poche diis. ah lay jógee. waaw mais mais foofu yokku nga fa quand même. waaw lu ñu fay yokku. sa poche diisul si côté boobu. loolu. mais jox nañ la paas quand même ñu ko. Ah, normal quand même ku la woo kay boo ñëw ñëwee wuyu ngay dem mu jox la paas jox nga paas garaawul am nga. am paas waaw loolu dara te loolu sax fay dem. waaw lan la woon loolu. ba ma jógee suñu kër mm. ñun xamuñu woon fa lañ dem man xaw ma ne woon man fa dem boobu. ok premier ministre xam nga waay la bu ñu amee combat daf ñuy jàppale. Mhm. defal ñu ay t-shirt ak yooyu yëpp. Mhm. xam nga ay. jàppale daal jàppale mhm. ba ñu xam nga wax ñu de jàpp ma ne dañoo xuloo. non mais attends Modou Lo taw taw si xam nga ne ñaar du naa loolu làmb la non lamb ji pour ñu doon ay gaayen maam ay adversaire nañ mm-hmm. bu ñu nekkee gaayen léegi ñëpp nekk bu nekkee gaayen ñoo ñooy bëri seen biir waaw duñu ay gaayen lamb ngeen waxtante téléphone yi ñaar ay savage yooyu non non non non sëkku leen ko non pas sëkku ñu ko daal <laughs> mooy loolu mais doo ko woo téléphone doo la woo aussi non hmm? doo ko texto non non plus non non te comme yow doo dem <laughs> <laughs> fii États-Unis moom bu ñëwee New York yoo nga ñëw bokk ci fii Cincinnati. waaw ah, moom maa ngi fi. waaw <laughs> ah, donc euh, donc seen seen turu boobu jubóo nii nii rek mais du ngeen ay machin. yow turu xuloo bi yow it yaa ko def xuloo. Mm. lan lañu xuloolee maa moom. Modou dis-moi euh, xam nga yow Sénégalais ñu bëri nañu jàpp ne. Mm. buñ nee Balla Gaye ñu ne Balla Gaye mooy réew mooy euh, ñàkk teggin et cetera naan boo nee Modou Lo ñu Modou dafa yaru mais dafa yaru boobu. Mm. ñu bari nee nañu yaru bi kii la benn yëre la boo xam ne da nga ñëw sol ko. waaw mm. ah, bu caméra yi tàkkee nga def ñu sëb. Mm. bu caméra yi fayee. Mm. nga ah, bi seen kii yooyu bu ngay seen euh, seen seen timbukaay yooyu. bu ngeen boo boo boo boo simee ko ba pare. Euh, nga war a sëgg. da fexe ba jàkkal sa adversaire. doo ko ñaari phrase yoo xam ne nii. waa ji ñibbi luy yàgg. phrase mel acide nga ko sotti. <laughs> yow nga bu xaw ma caméra yi tàkk sànq bi ñoo nekk caméra yi tàkk woon yow nga gis yow. non mais nante euh, nga. Ah, waaw noonu la rek. et puis surtout euh, wax ko ndax man. Hmm. Ah, wax naa la man say mbir sawar ma ci woon. parce que dama ne nga xaw a tooy. waaw <laughs> ah, mais yow. Hmm. Eh, mais man da foog ne firi woo. Hmm. mais découvrir naa ne. moo tax nga ñëw ma waa firi firi. <laughs> mais mais dis-moi loolu dëgg genre micro yooyu nga quoi da da ngay da ngay da ngay matt da ngay te yëpp yow fi ngay mattee. Mm. mooy matt yu ay kii kàtt kàtt yu. Mm. <laughs> da ngay kàttawaate. làmb daal danañ mm. làmb la. su ma amee suma adversaire. waaw loo koy wax souvent. non lu ma mën ko. <laughs> wax ba mu déstabilisé wu te du ma ko dépassé dinaa ko def pour daan ko. mais jox ma benn jox ma benn. yeneen dara ay tooñ rek ay tooñ la du ma ci dépassé kenn. mais Balla Gaye nee na nga saaga ak Baye Mandione. non yooyu waxam la xam nga yooyu sax du affaire góor yàlla. ñoom yi may wax man du ma ko wax xam nga yooyu intéressé wu ma loolu làmb la ci biir làmb la mhm. du ñu daje moo ko leneen wala leneen làmb moo ñu boole mais ci biir làmb yow par exemple lan ngay waxe waate ay tooñ la rek mais joxe benn tooñ quand même loo koy wax da nga naan euh, da ngaa maquillage wala boo ko sax su ma la xoolee nii rek lu ma la war a tooñ <laughs> mais man tey boo tey boo mën a clashé la may jox man tey su ma clash <laughs> yow da nga mën tooñ <laughs> yow da nga mën tooñ yow yaa mën tooñ waaw jox ma benn clash rek jox ma benn exemple boo mën a clash tamit loo may clash <laughs> ma xam pour ma xam daal yow gars yi nooy def ak ñoom. non non boobu. su ma takkee ngeen muy la inspiration boobu ñëw. <laughs> mais donc mën nañ jàpp ne euh, mbokk yi mën nañ jàpp ne Modou Lo kon euh, yarul na waaye mën na defante c'est ça. non du ay defante yi. Mm. mooy li ma la wax man li may def nëbbu ma ci dara. Mm-hmm. lamb bu taxawee ñu ne ci biir combat. ñu mm-hmm. lu ma la mën a def pour déstabiliser la. dama koy def te du ma la dépassé. mais pourquoi du doo def comme ay ñoom ay ñoom Balla Gaye nga xam ne ñoom dañuy taxaw en direct euh, à découvert tey micro yi tey caméra yi. ñoom da la yàlla bindee man kenn yarew ci noonu. kenn yarew ci noonu. xam nit ñi tamit dañ lay seraan. faaw nga jox leen xam nga xale yeeg lu nekk koy seraan. faaw nga jox leen xam bon exemple loo xam ni. Mhm. tey boo génnoon télé wax nii. xale yi bu ñu xëyee suba dañ koy wax hmm. xamuñ saaga la xamuñ dara dañ koy wax moo tax xam nga comme da ngay wax ñu déglu looy wax rek dafa war am importance hmm. xam nga ngay def loo xam ni hmm. xale yi buñ ci gisee daal dañ ci jàng lu baax ma xam waxee nii wala defee nii xale yi buñ génnee suba xam nga waxee ko te naaysul mooy loolu